nasrun min allahi wa fathun xaribun wa yàlla mi nu ñaanoon daaw mu may nu fekke ren te booba ren sori lool waaye bu jege woon yàlla nag sunu borom may nu ci barkeb xaadimul Mustafa ba fekkewaat ko nii noo koy tàllaat loxo di ñaan yalla bi nga xamni mom mom moom yalla ñu yalla may nu fekkee si déwén ñun ñepp lu teewee def ni and ak tal and ak wër ta and ak man bi jey xaadimul mustafa sul waaji xanaa rek di waxat ni nan andando ñun ñepp ginaabu nekké julit di jaami yalla ba nopi nekk soppi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi soññete sama bopp di soññete ku mu doon ci nun nu dollootee gëm xaadimal bi ci moom bisa ngi ñëw ci sama tur eggee nu ñaan sëñ Tuubaa mi nga xam ne lu waaye dagaan ci moom mu may la ko bu nu wooyee lenn loolu taalibi Xaadimu Rasuul mooy man kanamam te moo man ginnaawam wax na ko ci bayt yi sëñ mujj sëñ mujj bu jàng waab di kulli man taxallaxa bi sahaadatan daahimatan ya rabbi ya amin borom Tuubaa Xaadimu Rasuul xasida gi wax daa leen ci gàttal da wax ni mom barab bu mu nek rek kenn du fa bàyyi ko dem sawara lolou doy na khadim neena khassada xasidaam ji di ko masum fi ga yep tele ci jam foofa la tàmbalee moom jëm kaw diggante ak borom khadim mustafa neena khassada ke gi fu koy jàngee ku fa romb ku ne ya xam da nga dugg ca barab ba ma nga romb jall deg ara fi sa yàlla jéggal na say bakkaar borom tuba neena na gi diful ko masum barab bu mu nekk bu ne mo kawe barab bu mu borom tuba neena na gi diful ko masum barab bu fanan bu ne bo waté ni nak rasulullah ño fanan dig na do kafara borom Tuubaa nee na lépp daana jël ab taalibe di def ci moom li mu bëgg mu yéex a defaru mu ni dongali demal ci néeg bi ful koo ngi fi nga toog ñaan saa te ñibbi boo fa jógee loo bëgg yàlla defal na ko xësëri boo ko da lan dal koy jàng wax naa ko biig fii na ñëpp teewul di déglu njàngit wi ak neexit wi te xerawlu ko xam ni sëñ Tuubaa nekk ci jataay bi arafam bi amul fuñ koy jàngee te borom Tuubaa teewu fa amul fuñ koy jàngee te borom bi teewu fa amul fuñ koy jàngee te rasulay teewu fa xasida googu lam dal tàmbuli day ci bunt bi xasida ku ñu wax ma xaalixu niiraan wa ma faatixul jinaan fukki dafa naa ñaar fukki bayit la moom xasida gi sëñ Tuubaa nee na saa yoo ko jàngee ak koo mën a doon ak loo mën a doon ak foo ko mën a jàngee suñu borom tëjal na la bunte sawara dootoo fa dugg taw bi na la bunte àjjana boo léegi nga dugg fa makaani ko niiraat na ñëpp far nag la sëñ Tuubaa wax xas bi waaye bi sëñ mu tëj jëlal ñaari bay rek waxtu wi jot na wahab bi kulli man taxallaxa biya sahaadatan daahimatan yaa rabbiya wala yëpp maxfiratan lam yasbuxi li bis bihaa wala yëkkun bihaa bi ñaar yooyu rek ñu tëj waxtu wi jot na وحب كل من تعالى خبيئا وهب لكل من تألخ بها سعادة دائمة يا رب يا وهب لكل من تألخ بها borom tuwa ngay tallal ñaar loxum jàkkaar wahab li kulli man kana khadiya waaye ki ñuy ñaan xam na dañ koy ñaan te moom it am na ko wahab li kulli man kana khadiya ñaan kat bu nangu njaamam tey ñaan borom bu mën may ko koy wax tey wahab li kulli man kana khadiya borom tuba nee sun borom tabaraka taala dafa yor ay taalibe te bëgg leen jàmm teeg ëllëg wahab li kulli man ta'allaqa biya koo xam ni gëm na yàlla gëm rasulullaay fam ñaari loxoom jébbal ma saadatan naam texe beeg ëllëg daayimatan texe ko sax dàq koo xam ne dara duñ ko dindi yaa rabbi yaa sama borom bi nga xam ne ñu daa ko ci kaw suuf yaa ko moom walli yaa maxfiratan lam yusbaq maa ngi lay ñaan nga may ma njëggal koo xam ne dara jiitu ko li mislihaa wa li yakun bi abdihi mboolem njëkkal boo xam ne mos nga koo may kenn koo ko ma sax may ne si sama gis gi jiitu maa ngi lay ñaan nga jéggal sama ñaari wayjur waxi li jami te jéggal mbooleem ka koo xam ni man di taalaxu bi fadlin yaasi jébbal na ma boppam ma doon tawidam keroog bisu penc ba warda ani saabil kiraam borom Tuubaa ngay jéem ne la yàlla maa ngi lay ñaan nga gërëm saaba yi naa fi bi aada nas mi rabbi ay duan boo jéggalee saaba rasulullah yi jéggal nag ki nga xam ne moo way xasida gi waxi li kulli mbooleem ku dugg jullit bu mu dem sawara bu dee ku ko wal mu'mina bu dee jullit bu jigéen bu mu dem sawara wa xud lahum munnan li sukrin mutmina da nga may leen xiiwal yoo xam ne ca xiiwal yi dañuy jokk ba di la sant wafir li kulli muslimin la muslima maa ngi lay ñaan yow sama borom boo mbooleem koo xam ne jébbalu tey góor jéggal ko bu dee jigéen jéggal ko waxabla ummin karidan wa marama ta nga may ma ngërëm te may ngeen ngërëm yow mi nga xam ne yaay borom yërmande wa fi li kulli muhsinin wa muhsina képp koo xam ne gëm na yàlla gëm na islam tey rafetal wala umu aw sil masida bu dee góor la mbaa mu jigéen la gërëm leen te may leen ëllëg yërmande wasalli bi du'a tundallimi ma yàlla nga doon sa xéwal yi yow mi nga xam ne yaay ngëm te yàlla nga maye jàmm ala nabi wa rasuli sulami ci yoon yàlla alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne mooy kerkaanu képp ku bëgg a dem ci yàlla borom bi ay saayibil xalibi raakibi naji ki nga xam ne moo riñaane suufi juróom-ñaar bët asamaani juróom-ñaar jëm ci boromam yaa man bi yaquudu li xayra aji ay waay sama borom yaay ki nga xam ne yaa ma may loo xam ne yéeg la ku yàlla bind ci kaw suuf waali ak ay ñooñam wasaabi ak ay saabaam yaa rabbi yaa sunu borom wandur alayya barakatil anbiya yal na nga wàcce barke mboolem anbiya yi ci sama biir man xaadimal Mustafa wa sarmadan salli alayhim bi salaam yal na nga leen may jàmmi àdduna jàmmi àlaxira ba faw fi kulli man waafaqum bila mala képp koo xam ni bépp nga rasul lay di jëfe ndigalam te doo werante ak moom wajal bi jaayil aziz misaani laka ahaba min ibadati isa mboolem way bu la benn waay way ak fu ko mën a way dana saa ngi sujural la sam wasalli ya basinu wal musallimi maa ngi lay ñaan ya basinu yow aji tànnal ci wàllu sanam yàlla nga may jàmm ala nabi al arabi al allami ci yoon tam al islam bi nga xamante ne mooy yonent borom arab yi wa wa najibu kooku mooy taxal ko sopp mu tuddee gëndëk wa wa muntaxabu kooku mooy ki nga tànn mu gën mboolem gaa yi. wa man naa di li des lii nu jubu. mooy ko xam ne ci barkeem ci ngay fare mboolem loo xam neexul. wal muhasabu. mooy demee bakkaar yi. wal muntaxabu. kooku mooy wane ni ñu tànn yi. wala. wasaabi wa man yuntaqabu. walaali wasaabi wa man yuntaqabu. wal muhasabu wal muntaxabu. والآل وسالي ومن ينتقم جرجال من نهر من الله وفتح خريب وبزر المؤمنين برمنا الله دين جاء